kon bis ni tay gannaaw bu fa khalifa demé ba def lim def ba ba réconcilier nit ñi ba affaire bi am kon tay sénégalais bu dem Soudan lan nga yek ak lan nga fay fekk liggéey bu reuy bobu nak mm. nit ku am gor nit ku am jom nit dula ko defal ñew nga teud sa néeg wan ko ne ko man ya demone dik ga kon lolu rek lañ ci bëggono wax pour wane ni dal lolu moy importance bi kep ku nek na nga mané ku am ay auto nang indi, ko indi ku am ay moyens yo dimbalé nit ñi nang ko indi waye ku mëni tamit sax